mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm 30 euh, minutes chrono ci solution info TV di leen ñaan ngeen gën di abonné mais aussi ngeen gën di ñu seetaan mais aussi du ñu partagé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm namool leen comme ñu ngi koy defee saa su ne nag bu alxamis jotee ñëw euh, waxtaani actualité euh, fanweeri minute rek ñu fas yéene waxtaan wax suñu xalaat wax suñu gis-gis ci réew mi. léegi nag euh, tey jii li ñu fas yéene waxtaanee bokk na ci mbiri Pape Ndiaye en tant que journaliste te bi ko téye dinañ ci wax Agibou Soumaré bi nu woo ci wàllu yoon plainte Ousmane euh, Sonko bi ci ni nguur gi fu mu dem dañ koy topp di ko gàllankoor yooyu yëpp dinañ ci wax bu ci leneen xajee rek euh, ñu boole ko ci. ngeen fas yéene ci ànd ak Omar Bun Xataab Guèye di gërëm bu baax El Hadji du Diouf Abdou Top Ablaye. di leen gërëm baax son bu ci réalisation bi maanaam solution info TV léegi euh, waxtaan wi nag li ci ëpp doole tey ji balaa ñuy dikk ci mbiri Pape Ndiaye danoo dégg président de la république mu wax ci mbiri dund gi maanaam dund gi dañ doon xaar mu wàññeeku wàññeekuwul xam ne li yéeme ci réew mi mooy ñun dafa mel ne amatuñ ay njiit amatuñ ay kilifa. wala boog mun amee ay njiit am nañu amuñu kilifa xam ne doon njiit yomb na ñu fal la nga doon président mais doon kilifa moo jafe maanaam kilifa lenn rek lañ koy nawe mooy mu am baat am kàddu te ñaar yooyu dafa mel ne président Macky Sall da ñàkk moom ak nguuram maanaam amatuñu baat ci réew mi amatuñu kàddu ci réew mi kàddu googu nag moo ko njëkk xañ boppam mbiri troisième mandat dinaa ci dikkaat ndaxte moo wax waxeet bari na lu mu diggoon askan wi def ko waaye baat boobu sax amatu ko ndaxte digal sax ay nitam na leen def leen ñu def sax président Macky sàll mënatu ko kon tey jii dafa jiite Sénégalais yi rek mais est-ce que mat na leen kilifa ñi ngi dégg fan yee weesu ku mel ne Mame Mbaye Niang génnee ab audio ab audio bu génnee ñu ne moo ko moom waa loolu wax mu ngi naan président Macky Sall moom ak ay nitam wax ni daal xajootuñu bari na ci ñoo xam ne déglootuñ ko. ojo bi di génnee loolu ñu ne Mame Mbaye Niang wóoruñu ñu moom la dañ ko monté waa mais audio bi moom lañ ko bàyyale te loolu li koy firndeel mooy bari na ay décision yoo xam ne dañ koy jël ci réew mi yooyu la décision bu ko njiitu réew mi jëlee ba pare jëfe ko jafe démb rek ñu ngi ciy dégg Idrissa Seck mu naan ci ab euh, décret boo xam ne président da ko signé woon mais ba jusqu'à présent administration beeg ñoom seen ci conseil économique social environnemental mais loolu lépp Macky ak Idi moom seen affaire la ñoom ñoom ñoom la rek ñoom seen affaire la quoi mais bu dee li ñor askan wi jëm ci mbiru dund gi luyaas bi gars yi da dégg ñu ci wax mais luyaas bi du mën a wàññeeku parce que ñi moom kër yi ñuy luye ñoom ñoo war a wàññi luyaas bi xana man moomuma kër keneen keneen moomuñu kër mais këru borom barke yi borom barke yi wàññi war a wàññi luyaas ñoo ko war bari na ci kër yoo xam ne ñi nekk ci nguur gi ñoo ko moom kon wàññi ko day jafe kon sëlëm nit ñi la rek yóbbu ñu ci yoonu deux mille vingt-quatre pour gëmloo na ñi ñi ngi wàññi. beneen bi ci topp da ngay dem ci marché bi suukar cent cinquante lan doon wax ci liibar bi tey jii man de Kër Masaar ga ma dëkk gën waa liibar suukar cent soixante quinze franc la fay jar cent soixante quinze franc te cent cinquante la ñu ne kilo bi six cent tey jii kilo bi Kër Masaar sept cent lay jar kon wàññi amul boo ñëwee ba ci ndawal li la même chose njëg li gën naa yokk dellu na fa mu nekkoon ba ci transport bi ñi mujj wax ginnaaw ab euh, dogal bi fi jëloon ni yokk nañ carburant bi waa Tata yi aftu xëy ne dañuy yokk ministre bi di Mansour fay génne kayit ne buñ ko yokkoo mu rëq seen digg dem ban menacé nañu mun na nangu seen i licence mais yokk boobu am na ligne 57 bi mu ko déggee dama kaa gëstu ligne 57 bi jëm Tëngéej yokk na ligne 54. bi jëm Kër Massar bu ma juumul yokk na ligne 76 yokk na te ligne 76 li ci am mooy li gën a bon mooy ticket yi ñuy dagg démb laa ko gëstu te am naa ci lu ma leer ticket yi ñuy dagg léegi machine yi ñuy daggee ticket yi machine yooyu ticket cent franc amatu ci benn booy receveur laa ko laaj booy bi na ma ñiy defar machine yi programmé tun ticket cent franc maanaam boo jigee liberté 6 jël 76. jëm Padois boo deful nank cent cinquante francs ngay paas te du benn décret wala arrêté bu génnee nan yokk transport ci Sénégal mais transport bi yokk nañ ko loolu nag boo gisee ñu koy wax mooy ñun sunu njiit yi duñ ay kilifa te matuñu nu njiit parce que lii di soxlaay askan wi ju cooñaay sénégalais yi dafa ñorul nguuru Macky Sall mais aussi dafa ñorul ay ministre am ñorul administration ñorul tamit gëm naa ni takk der yi ci tali bi parce que ni ñuy def bay jàpp ay chauffeur naan leen yem leen fii yem leen fee mais buñ ko doon contrôler oto yi xool ndax prix yi ñu ngi koy appliquer am déet mun na am duñ yegg fii mais xamul lu leen ñor xëy nekk ci réseau sociaux yi maanaam nguur la goo xam danoo am jot duñu ay liggéeykat li ma Ludovic Rosner waxoon mu ne nguurug président Macky Sall ñaar moo mën a am mooy soit duñu ay liggéeykat wala bëgguñu liggéey maanaam mënuñu liggéey wala bëgguñu liggéey ñaar yooyu rek moo am parce que boo xoolee ni Sénégal di doxee dangay xam ne ay cuune dëgg ak ay yambar fanaanoo ñoo ko jiitee te loolu nag li koy dëggal mooy dundunu askan li soxal askan wi dëgg-dëgg di nga nit ñi fu ñu dëkk fu ñu fanaan waaye te lu ñu lekk ak lu ñu naan di nga loolu mooy doon loo xam ne mooy li leen gën a yitteel si seen dund parce que saako bu deful du taxaw may nguur gi foofu la maanaam la demande sociale danoo seetaan askan wi ci côté googu balaa maa dee ñu naan defar na ay infrastructure waaye ay infrastructure kan moo cay daw mooy ki lekk ba suur nan ba màndi waaye te ki am paas sax pour xëy mais am na ñoo xam ne pour sax ñu génn dañuy lepp wala ñu ñaan kon ñàkk googu ci réew mi lu wóor la te lu ñuy dund la te lépp nag li ñu ko teg mooy nguur gu yaafus nguur goo xam ne duñ ay grossiste may ay détaillants lan maanaam ci ay détails rek la ñuy daw mooy dañuy xëy ñu ne nan dem xooli solution info TV lan la Sanjogu wax lan la Soy bu wax Omar bun Xattaab lan la wax léegi ñuy xool ban erreur la bu bun Xattaab def pour ñu woo ko maanaam ñoom jot boobu lañ am jot jot boobu maanaam jotu di xool Pape Ndiaye lan la wax ci petit déj ay jotu Pape Alé lan la wax ci sitam jotu Cheikh Bara Ndiaye lan la wax ci kii nu mu tudd. fajum cosaan ñuy xool lan la la mën a taqalee ngir bu la yóbbee ci yoon mën la daan nan lañuy ñuy xoolee benn activiste wala benn booy bu nekk ci Facebook maanaam maanaam nguur gi jotu Facebook lan am ak ay jotu YouTube maanaam nguur gi loolu mooy seen problème alors que ñoom YouTube ak Facebook yooyu ak médias yi dafa waroon doon benn lantinoor boo xam ne ci la ñuy xool ngir xam jafe-jafe askan ndaxte bu dee RTS la nga koy seetaanee wala di ko dégg seen i nit parce que Sénégal dañu am ñun benn culture nit bu jiitee ñàkk a sës dund na ko mukk déet waaw rek lañ koy wax mooy la xaarim sàmm mu sa wax Idrissa Seck xam ne daal na fi ànd ak Idrissa Seck ne ni idi wii rek lay dégg xanaa noo amul ci baatu tubaab ci parti réew mi jii lépp lu Idrissa Seck dund ci àddina lool la parce que privilège ak ay confort bu bari baaxul ci nit confort bu bari da ngay dem ba sori askan wi dem ba sori dëgg te doo ko yëg te lool moo dal suñu nguur yi moo tax képp koo xam ne dañ lay gis yaa ngi toog ci média yi ku ci mel ne Pam lool moo ñuy yóbbu ci ay mbiram ak téye guñ ko téye danga nga leen di fatt danga nga leen sonal te loolu da am ku ma ci waxtaanal di nga président Macky Sall nit la koo xam ne xajowul dara problème mu Sénégal yépp loolu la nit la ku xajowul dara maanaam nit koo xam ne ay wax la mënta muñ te Serigne Fall danaan wax naan nit ki boo mënul muñ ay bang-bangam matoo ko kilifa ñun sunu kilifa daf ñu topp ci ay détails ay Omar Gueye wax na lii lu tax Omar Gueye wax lii lu tax Omar Gueye wax lee alors que moom dafa waroon nekk ci sur les grandes lignes maanaam li ëpp solo te yitteel askan wi. du lu ma Samba wax lu du lu ma ba wax déggu fi lu kenn déggul déggu fi lu Abdou Diouf déggul déggu fi lu Senghor déggul déggu fi lu Laye Wade déggul pourtant ñooñu dandoon muñ lu bari pourtant Macky Sall mu dul muñ dégg naa c'est sa personnalité ay wax lay bañ di ngay wax ñi ñuy wax ci réseaux sociaux day fàtt ki di président Macky Sall yaa ngi gis bi mu fi wax ci mafia kàcci kàcci kàcci kàcci gi dina dakk ci réew mi njëkkewul ci kàcci kàcci gi Macky Sall ci wax sa xalaat. li may wax ni man dama daan def émission kàddu réew mi wax sa xalaat wax sa xalaat moo ko njëkk a poser problème ki àddina mooy wax sa xalaat te boobu réseaux sociaux tollagul ne wax sa xalaat yi ci rajo yi war nañ ko seetaat war nañ ko seetaat du ku mu neex rek nga jug wax lu la neex moom yooyu lay lijjante ay wax sa xalaat président Macky Sall xam nga lay lijjanti ay euh, kii nu mu tudd revue de presse Omar Gueye revue de na Laye Bob revue de na Ahmed revue de presse ni ñu koy defee ci Sénégal du noonu parce que dañ koy commenter di ci waxal dañuy politique maanaam ñoom détails yooyu li lijjanti amuñu jotu askan wi ay jotu diw revue de presse na diw wax sa xalaat euh, Macky Sall dingat na fi wax sa xalaat ñu bari dama foog ni réseaux sociaux moo ko sonal dingat na fi revue de presse Macky Sall dem na sax ba ligne éditoriale journaux yi fii da koy def problème loolu moo tax Walf mënul am jàmm képp ku fay liggéey mënoo am jàmm loolu nag moo ñu yóbbu tey ji ba réseaux sociaux lu ci wax nit wax mu doon musiba heure bu demee ci sëriñ si non il faut que ñu réguler réseaux sociaux yi il faut que ñu assainir lay médias waaye assainir lay médias médias yi ñoo gën a tuuti ci lu ñu war a assainir ak réseaux sociaux yi ndaxte réseaux sociaux yi lépp lu ñu yàq ci réew mi ñu ngi koy defar ñaata nit ñoo fi jaaree doon ay millionnaire à cause des réseaux sociaux ñaata nit tey jii lanu xam ci àddina ñu mën ñuy jariñ seen askan ndax réseaux sociaux te bu réseaux sociaux amuloon du am maanaam réseaux sociaux njariñam mu ëpp lu mu yàq waaye moom yooyu koy fatt bu sañoon moom moom rek mooy wax parce que looloo ko ay nit ay nitam tàmbal mooy Macky loo wax noonu la loo def noonu la loo dégg nongu la maanaam noonu lay dundee léegi nag sénégalais yi nag loolu lañ ko mayul loolu nag mooy problème mu nguuru président Macky Sall maanaam di ko def ba noppi nag kenn du ko fi waxee ñu assainir presse bi assainir réseaux sociaux yi mais nañ ko njëkkee ci gouvernement bi mais nañ ko njëkkee ci gouvernement bi ñaata ministre lan fi fal te waruñu doon ay ministre ñaata directeur lan fi fal te waruñu doon ay directeur ñaata député lan fi far te saagaa tax ñu fal leen kon nan assainir ministre ñaat député ministre lañ fi impliqué parce que danoo sàcc alalu réew mi wala da na a jiñ ne danoo sàcc alalu réew mi ñaata directeur lañ fiy tudd ci ay rapport ne danoo fob alalu réew mi ñaata nit ñoo nekk ci nguur gi di def naka sudul noonu ñaata nit ñoo nekk ci administration bu Sénégal te waruñu fa woon ne ñaata nit ñoo nekk ci fonction publique te waruñu fa woon ne ñu ñuy bëgg a rey naag presse beeg réseaux sociaux yi non non yi nañ ko ubbee li lay kërëb kërëb nanu assainir réew mi. réew mi bu ñu ko doon assenir fépp la ñuy assainir diine jeeg lépp la ñuy assainir kon presse bi moo war a gën a tuuti ci li ñuy assenir bay si sa wewu tànk nañ ko njëkkee ca présidence jaaree ko ci assemblée dugg ci administration bi dugg ci justice bi noonu mu amee ay nit yu jaar yoon noonu la amee ay nit yoo xam ne dañuy jàngal yoon kon bu ñu kenn rey ak presse bi léegi nag presse boobu moom dafa mel ne ñoom ñoo daas seen paaka presse bi li leen dal dañ cee am loxo ñun journalistes yi dañ ci am loxo parce que ñun nag danoo daas paaka jël ko jox ko sunu noonu na ko nanu rendi ñu naan ay code de la presse ay carte de la presse may nguur gi mu am dogalu toog naan kii may journaliste ak kii waru ko doon loolu loolu li may nguur gi moo ëpp te loolu bi dañ ci am responsabilité les patrons de presse dañ ci am responsabilité léegi ñenn rek ñoo ci dee mooy les reporters ñenn rek ñoo ci dee mooy sunu masque gi ndax fa ñuy lijjantee ñun duñ ko fekkee décision yi ñuy jël ñun duñ ko fekkee décision yooyu nag ñuy jël yenn saay baaxul mooy daanu sunu kaw code de la presse bi lan moo ci ne dem na ay dogal yoo xam ne dem nañ ba ne ab préfet wala ab gouverneur sañ naa toog dégg nit di wax mu ne béréb bee diw di waxee na muy waxee du noonu nañ ko tëj loolu dafa amoon ci lay Wàdd Abdou Diouf sax loolu amul ci woon tey jii fi ñu Macky Sall yóbbu. bari na ñu bari ñu bett mais man bettu ma bi ñu waxee fii ci Covid 19 naan ay état d'urgence rek ay couvre-feu mais man toog naa ci émission Taku Show nan ci dictature la ñu jëmee fa ñu jëmee ndox amu fa waaye danoo bëgg a noot am troisième mandat bi mu koy wax waxu dof lañ jàppoon moom laay wax benn femme woo ma ca Mbour na mu Omar wax ji nga wax gars yi ñu ngi lay ree ma ne ko mais ay état d'urgence couvre-feu yi wax corona mais corona bi dañ ko bëgg a jariñoo parce que dafa am ay rapport ay kilifa yi defoon ay jàngat ci bi corona di ñëw ñu ne corona am na ay nguur yoo xam ne ci la ñuy daanoo waaye corona am na ci ay nguur yoo xam ne ci la ñuy noté seen askan ba faw ci biir corona bi ñaata loi lañ fi voté loi yooyu moo ñu topp ba tey dem ba naan taskatu xabaar bi nii la war a doxee nii la sañ di waxee léegi danoo bëgg a yemale rek journaliste yi ci toog présenté journal teg ci def revue de presse yam foofu quoi nekk ci journalisme bu classique bu yàgg. àdduna dox léegi nit sañatul def analyse te su analyse da daan am danga daan déglu ay Aliou Ndiaye déglu Babacar Fall RFM daan déglu Ousmane Sène Walfadjri boo liiree journaux yi daan gis ay Mame Ongué Ndiaye di bind dara xew ñu wax ci seen xalaat journaliste bu mënatul xalaat na bàyyi toog dara xew mu wax ci xalaat def ci commentaire def ci chronique wala mu def ci analyse léegi ñu ne lool waratul am la justice est rendue au nom peuple askan wi la nii justice bi askan wi la fi nekkal. ñu ne non justice bi léegi amul ñu ñun di commenter benn Pape Ndiaye doon ab chroniqueur ci wàllu yoon sañul dara xew ci justice mu commandé ko wax ci xalaatam la justice est rendue au nom du peuple peuple boobu amuñu seen gis-gis dina justice di doxee ñu bëgg ñu yóbbu sur la république des juges ñun ñëpp ñu fas yéene ko nangu jatan suñu bopp tënk suñu bopp jébbal président Macky Sall réew mi ñu juddoo duñ fi tudd jéer yi duñu mbadantaan juddoo fi màggee fi kenn ëppalewuñ fi lenn léegi ñu bëgg am fu ñuy yemloo damay déglu wayu Thione Seck bi apartheid ma ne mbaadu Sénégal dafa dugg ci apartheid ndaxte la wax maanaam nekk ca biir dëkk amatoo fa baat amatoo fa kàddu mais loolu moo am Sénégal lan doon way ci apartheid sañatoo wax lu la neex di la di la xooloo fi ñu bëgg ñoom mais wute mais ci la xam-xam di génn mais pourquoi ñu ni léegi yéen ñëpp da ngeen war a bokk bët bi ngeen di xoolee yéen ñëpp da ngeen war a bokk fi ngeen di gisee presse bi nangu ko avant Macky Sall bu mësoon a jàpp ay journaliste presse bi yëpp ñooy xëy bind ko def ko à la une Pam Ndiaye ci kaso bi mu mel ne dara xewul lan la Pam Ndiaye def lan la wax li wax bu dul dëgg nañ ko rectifier wala bu bu dee lu mu wax du dëgg nan génnee dëgg gi. mbiri aji saar ci la moo tax ñu téye Pape ci la moo tax ñu woo Pape Ndiaye ñu ne duñ ci wax dañ ciy wax parce que du Omar Gueye moo jotee aji saar information la boo xam ne askan wi yëpp ñoo ko bokk ñëpp di ci wax ku ci am xalaat da ko ciy wax la cooyoon di àtte nag yoon a xam léegi président Macky Sall jël yoon def ko yetu xeexukaay ay nitam lu def gongo kaso bii bëgg a fees ana Serigne Assane Mbacké foofu nag laay wax ak waa Pastef ak ñoom Ousmane Sonko Ousmane porté na plainte lu lu baax la mais nag mbéjum kanam boro koy boroom a koy fajal boppam gat sa gat sa jot na ndaxte nag Ousmane Sonko bu jàppee ni xeex bi moom rek moo koy xeex gañe ko day nax boppam parce que nag bu dee ni képp koo xam ne yaa ngi taxaw Ousmane Sonko ci wàllu xaalis koppar express tëj nañ buntu boobu tëj nañ robinet ya journaliste ya koy waxal ñu ngi leen di tëj ña ko doon xeexal ci mbedd mi ñu ngi leen di ba ci ñoom Amidia ñoom ñëpp ñu ngi leen Amidia lan lañ ko jàppee ci envoyé xaalis loolu lépp di am ñu yóbbu ay nit instruction du la atte du la def dara da lay tëj ba heure bu leen neex la ñu bala réew mi yëpp na patt di seetaan ñi war a wax ci réew mi duñ wax bu ñu waxee ñi ay waxi kankurang ak lu ñu xamul lan mooy kankurang kankurang kay moo gën kàkkatar garab gu mu yëg ànd ak moom nduróog moom kankurang man de moom a gënal ab kàkkatar ku ñuul weexoo safoo yàpp safoo jën ñépp xam dëgg ki ci réew mi ñépp na pat nan bàyyi Pape Ndiaye mais loolu aussi taxawaayu journaliste yi nin taxawoo Pape Alé Niang mu génne taxawoo ko wal fajri bi ñu ko tëjee lan war a taxawoo Pape Ndiaye ndaxte ku foot ni mbir mi ci Pape njaay rek lay dal yaa ngi nax sa bopp loolu tax li Ousmane ko waxoon am solo regroupement des force vives de la nation maanaam réew mi mi politicien di société civile ñëpp danoo war a daje ci benn objectif mooy benn ñi ci kaso bi dañ leen war a libérer beneen bi ci topp mooy élection yi ñu jëm dañ ko war a teg ci yoon beneen bi ci topp mooy justice dafa war di def liggéeyam normalement parce que la justice est rendue au nom du peuple justice am na droit wax ko ni ni ngay doxee du noonu tegul ci yoon wi. ndaxte réew mi la Kéba Mbaye doon wax ñëpp a ngi nelaw ñëpp a tëdd waaye kenn nelawul nit ñi xam na li xew képp ku ñuy gëmal ni justice mi ngi def liggéeyam normalement non loolu waxuñu sax justice bi jëm ci mbiri politique yeeg mais y a des jeunes yoo xam ne tey jii ñu ngi ci kaso bi la lan def am na ay boy yu fi jàppoon yóbbu leen mais dañ lay yóbbu yóbbu la ci kanamu juge bi après du la tax dara da jàpp na la rek parce que Ousmane Sonko moo tax. mais am na ci ñoo xam ne tey ñi leen jàpp sax xam nu tax ñu jàpp leen kon nanu libéré Pape Ndiaye nanu libéré Pape Ndiaye ku foog ni nag Pape njaay rek la mbir mi di dal sa kawam yaa ngi nax sa bopp ñi paree guñu la ma ko doon wax naan seen mandarga bi fas bi xam ne Idriss Seck da ko waxoon kii di président Macky Sall dama daje mu ni ko wàññil xeer yi mu ni ko sa mandarga fas nga yor te fas nag boo bëggee mu daw da koy làbbali waaye fas bi yemul ci daw mais fas bi day màmm fasu maam nag mën nañu yóbbee fu ne loolu moo ñuy indi nag ci justice bi waaw Pape Ndiaye tey jii woo nañ Hadjibou Soumaré mais justice boobu kenn wóolootu ko bu demee ba Ousmane Sonko di porter plainte nit ñi di poser question naan kii di Ousmane Sonko day porter plainte waaye du am dara ci kanamu yoon mu mel ne léegi boo nekkee opposant wala koo xam ne ànd nguur gi léegi yow yoon nekkatul la fi. alors que la loi général est générale et impersonnelle dem ban la yow léegi euh, Ousmane Sonko mun na porter plainte du mujj fenn te moom bu ñu ko porter plainte mu mujj fenn ku yaakaar ne justice bi mooy seetal Ousmane Sonko wala moo koy may jàmm yaa ngi nax sa bopp parce que nag yoon dafa jeng nañu baal ak Hadjibou Soumaré ñu ne 7,7 milliards bi Macky Sall ñëwee. ne day euh, bi dalalee gan gi di Marine Le Pen léegi bi Marine Le Pen yi ñibbi da ko jox yóbbalu set virgule sept milliards dëgg la est-ce que mbaa du dëgg mais ji nga sunu borom yàlla yàlla dafa juste nit moo jubadi mais jë est juste bi ñu jëlee alalu réew mi ne dañ ko jox Marine Le Pen mbir mi jur coow mbir mi du alal ji mbir mi xam mooy lan lan lan doon nëbbatu ci audience boo xam ne dalal nan Marine Le Pen audience ba jeex publier wuñ ko ci journal officiel ak site gouvernement bi mais aussi conférence de presse conjointe bi ñuy faral di def maanaam bu benn kilifa ñëwee moom njiitu réew wala ministre des affaires étrangères ñu daje waxtaan ci lan doon gisee ñoom ñaar bu doon loolu lépp def nañ ko Marine Le Pen du dem jàkkaar ak Mamoud Ibra Kane di wax ni moom Macky dalal na ko te pour pourtant dañ ko doon nëbb lan lan doon laxatu làqatu boobu nag moo indi nit ñi di jeex di jeex di jeex di jeex ba gis 7,7 milliards yoo xam ne jox nañ ko yóbbal Hadjibou Soumaré posé ay questions mais Hadjibou Soumaré ay questions la posé mais question yooyu réponse lañ ciy xaar xaaruñu Hadjibou Soumaré dem ci kanamu takki der ñu koy laaj muy tontu mais nan nguur gi tontu ci ni loolu dëgg la wala du dëgg loolu rek la ñuy xaar. maanaam nguur gi nan ñu tont ci ni loolu dëgg la warul du dëgg bu dul dëgg ñu ne Hadjibou Soumaré kat juum na parce que ji nga homme politique mi Ousmane Sonko ku mënti doon jaruñu yóbbu kaso jaruñu tëj jaruñu porte plainte homme politique crédibilité la kàddu ji nga bu dee nii tey Hadjibou Soumaré loolu mu wax du dëgg te nguur gi firndal na ko Hadjibou Soumaré mënatul wax lu nit gëm jaru yóbbu ci yoon mais nguur gi dañu tàmmal mbiri xaalis cawal xaalis Bougane tudd na fi Mansour Faye ci mbiri xaalis pourquoi woowuñu Bougane Gueye pourquoi Hadjibou Soumaré question boobu jërë posé la pourquoi woowuñu Bougane Gueye te Bougane moo gën a rëy làmmiñ foofu Hadjibou Soumaré lu tax euh, ñu fi tudd ay alal ju bari xaalisu corona baa ngi nii déggagun ci kun ci woo haute cour de justice taxawalagun ko furaat dallu xëddeen te looloo gën a garaaw ci àddina ndaxte deretu askan lañ doon mucc Cour des comptes génne ay xibaar Mansour Faye wet leen jàppe leen ñoom ay homme politique comme comme na ko Moustapha Diop dafa woon ca Cour des comptes mais loolu lu jaroon a leeral la mais ñun danoo yor askan woo xam ne am na amnésique danoo gaaw a fàtte dañuy umpale lu bari parce que yooyu yëpp tey jii waroon na laaj taxawaay mais ñun nag suñu askan tamit danoo am sikk ñun sénégalais yi ni ñuy xeexee pour Ousmane Sonko nekk candidat ni ñuy xeexee ci mbir Adji Sarr ñoomu seen mais noonu lan war a xeexee pour suñu deniers publics suñu alal ñu sàmmal ñu ko mais boo wootoon ci mbedd mi tey ji doogi téeméeri nit moo tax gars yi yëpp ñu yëpp goo xam ne saññu fopp suñu alal sàcc ko def ci lu leen neex te du mujj fenn looloo waral te benn sa Seck ñu tudd ko ci mbiri yi sànce wu Cees tey ji mu toogaat ñëw naan day bëgg a nekk président keneen ak keneen maanaam fi ñuy yóbbu suñu alal ak fi ñu ko jëmee loolu dafa war a doon lu ñor askan wi ñor la société civile société civile boobu damay wax forum civil man déggaguma leen ci mbiri ak euh, Marine man déggaguma leen ci mais tey jii mbir moomu maa ngi fàttali mbiri Alex Segura bu dee Modou mi ngi may dégg mi ngi koy fàttali Alex Segura ab représentant la woon bu FMI bu ma juumul nan bu ma juumee nan ma baal ñëw fii di ñibbi Ablaye Wade jox ko yóbbal yóbbal matul sax cent million ji nga loolu moo defoon la une des journaux maanaam yéenekaay yi ci Sénégal def nañ presque une semaine di ci wax singili Abdoulaye Wade ci koo xam ne dafay ñëw di ñibbi mais gars yi corruption lañ ko tudde woon mais nit singili woon Abdoulaye Wade ci mbir moomu mais lii moo ko gën a garaaw foofu fekk nit koo xam dafa bañ nit ko ñuul di boddi kontere koo xam ne tey ji bu fal woon tey ji ca France ñu bari duñ am doole maanaam nit ñu ñuul ña fa ne ñu bari dinañ tumuranke ñu dalal ko ci réew mi di ko nëbb ñu jël leen ni yëkkati na ay koppar jox ko xoolal loolu mais loolu nag bu amee bu mu bett kenn ndaxte Macky Sall day fekk ki ñuy génn sàcc ginaar mu dénk ko ngunu la Cheikh Oumar Anne kuddu Mame Mbaye Niang Prodac xaalisu Prodac bi léegi kenn waxul ni Mame Mbaye Niang na wax fa la suñ xaalis dugg ñu naan na Ousmane Sonko ma ko wax waru ko wax wala na mu juumee ci IGF président Macky Sall mi balaa muy fallu ci réew mi daf ñu am na juróom-ñetti mu ñu ñu ni ko foo ko jëlee ñu ne ay largesse Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade na may wax ko nga gis fi ay fonctionnaires yoo xam ne kii di far Farba Ngom këram ñu ne sàcc nañ fa huit cent millions huit cent millions fu ñu ko sàcc kay ay milliards a fa doon nalaw milliards yooyu fu ñu ko jëlee est-ce que lijjanti nañ ko tey jii dund gi ñuy dund mu doon coono ba dund gi yëpp yokk sénégalais xiif mar lenn moo ko indi. mooy sunu alal ñun sénégal yi ñu laan six mille quatre cent milliards de budget alal jooju di dugg ci réew mi baadoole yi gisuñu ko alal jooju fan lay dugg est-ce que dañ koy jox ay ma Le Pen ak est-ce que dañ koy lii ak wala lee ñun wóoruñu mais yooyu moo jaral leeral te loolu moo laaj taxawaay parce que tey jii président Macky Sall bu ko mari Le Pen woon en tant que Macky Sall garaawul mais njiitu réew bu Sénégal la dafa ñun dañoo am droit sunu njiitu réew bu duggee ci dara mu rendre ñu compte. wax ñu position wax ñu taxawaayam comme la xew ca Tunisie mu wax ñu ci xalaatam wa wax ci gis-gisu état wu Sénégal maanaam boo gisee ñun ñuy ngat-ngat di sonn ci wax gi mooy lool mooy ñun amuñu problème mu président Macky Sall ndaxte bu doon Macky Sall jëmmam rek mun na am du ñor ab Wade jóge na fi tuddatun ko ab Abdou Diouf jóge na fi tuddatun ko sengoor yàlla na ko bu borom jégal waaye yow nag da laa dénk suñu réew dénk la sunu destin dénk la suñu ëllëg kon looy dugg. looy dox looy wax ak koy jëflanteel ñun dañ ko war di xam maanaam lépp ñu koy def ci transparence ci gouvernement boo xam ne day doxal ci jub ak jubal lépp liy ndëngatee mu doon loo xam ne dañ ci war a musal la Idrissa Seck waxoon damay dellu ci ay kàddoom de déclaration de politique général dañuy fexe ba xeex njublang waaye dooleel góor góorgóorlu pour man foofu la ñu toll ak sénégalais yi maanaam xeex njublang yi fi ne mais fa yéene dooleel góorgóorlu te loolu taxawaay lay laaj mais taxawaay boobu mënoon na ñàkk bu doon ni justice mi ngi def liggéeyam bu doon yoon jengul waaye tey jii ñi ngi tudd ci ay rapport di leen tudd ci ay mbir di leen tudd ci lii ak lee mais taxawaay bi dafa des bu dee Macky nga faral doo mujj fenn waaye bu dee opposant da topp ba mu set ni Cheikh Agibou Soumaré loolu mooy mbir mi léegi nag ci mbir Cheikh Agibou lay daanele di wax ni nag dafa am benn piège boo xam ne dama bëgg ñu bàyyi xel ah Cheikh Ayibou Soumaré dafa génnee lettre am ñu woo ko ci yoon bu demee mën nañ ko accuser diffamation diffamation ba pare jël daan teg ko ko xam ne Cheikh Ayibou Soumaré du enjeu pour sénégalais yi Sonko mooy enjeu bi léegi bu ñu ko tegee daan bi ñu naan ah, Cheikh Ayibou Soumaré teg nañ ko daanu diffamation accepté na ko kon Ousmane Sonko am Mame léegi léegi bu ñu daanee Ousmane Sonko moom tamit da ko war a nangu est ce que Cheikh Hadjibou Soumaré dugalul ko ci loolu parce que moom tamit élément wu système bi la yàlla rek moo xam man loo tax ñooñu mi Cheikh Agueyob di keneen seen i mbir dama ciy teey parce que élément wu système bi la te Ousmane Sonko dafa ñëw pour xeex ak benn système bu fi yàgg te Cheikh Hadjibou Soumaré nag système bii dox ci Sénégal ak Afrique da cee yàgg kon na nit ñi tey ci Cheikh Hadjibou Soumaré bi ñu jël teg ko naan dañ koy yóbbu ci yoon. mun na doon ñoom rek seen i mbir seen i tappale ak seen i dóor pour que bu ñu demee ci mbiri Ousmane Sonko ñu ne ah comme yóbbu na Cheikh Aguibou Soumaré ci yoon moom nangu na ni diffamation la def léegi Ousmane Sonko tam moom daan na nangu alors que daan Cheikh Aguibou Soumaré daan bi ñu koy teg mu koy accepté mais daan boobu bu ñu ko tegee Ousmane Sonko mu sànku parce que enjeu bi yëpp mooy Ousmane Sonko dafa war a doon te bu ne sursis wala yenn somi ci xaalis teg na la ko mënatoo doon candidat kon atte bi ñuy atte Cheikh. Hadjibou Soumaré ak Ousmane Sonko bu mu doon benn kon bu nu mbubboo si Hadjibou Soumaré ngir mën a dal ci kaw Sonko ah man damay xalaat rek de ma ni loolu moo am de waaye réew mi booy xalaat del xalaat rek del xalaat ci lépp del bay xel ci lépp ak gars yi bari pexe te danoo jubadi mbokk yi kon euh, mu ngi noonu di leen euh, gërëm bu baax. di leen jéggalu di ñaanal ñëpp jàmm bu dee njumte am na ci wala am na ku tudd te neexu ko ñu ngi koy jéggalu jubluwuñ ci dara waaye li ñuy faral di wax rek di ko def te kenn du ko wax loolu moom yàlla dogalagu ko fi mu réew di Sénégal nan tee Pape Ndiaye nan tee Pape Alé sàmm tee Massamba nan tee Mademba ginaax gu ñu rey geneen ginaax génnaat noppi duñ ko fi defee dinañu wax sunu réew ni muy doxee ñu teg ko ci yoon bu boobaa jàmm bu jàmm amee xol kon di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm Ablaye Modou ak euh, topp euh, soin bu Sandiego groupe solution yëpp ah ñu ngi leen di nuyu Assane euh, di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni rek mën ngeen di seetaan ci solution info TV mën ngeen aussi tamit di abonné di partager mais aussi tamit di ñu bàyyi xel bu baax mais aussi commentaires yi aussi tamit ñu ngi leen ciy bàyyi xel ndaxte lépp rek yokkute la ñu ngi leen di ñaanal jàmm jërë ngeen jëf.